moo xam ay sët lañ moo xam ay taalib lañ ñu ngi leen di nuyu nuyoo yi gën a rafet ci nuyoo yi di leen sant di leen gërëm ci turu sëñ Alaaji Fallou bi ci bis bi ngeen ko jagleel tamit bis bu rëy boo xam ne ku ci bokk sa mbir mën naa jag tey sa mbir mën naa jag ëllëg ndax seen fàlloo ni toll weer wi moo ni toll julli moo ni toll danaa dégg ci mag bu baax muy seen saali bi wax ci rajab ni weer rajab dafa foor ba ñi nga xam dañ cee gën a adduna muy nit yàlla yi ci gën a adduna bu dem ci xadara ba dañ leen di ber bi al isra wal miraj muy bis bi julli ñëwee kon ku ne xam ne kooku mooy jullit piir jullit piir nag boo koy natt sëñ waaye sëñ Fallu mooy jullit pilis jullit nag boo koy natt mooy égal murit kon booy seet murit piir mooy sëñ Fallu ndax moo jaay mu juréelam jëlee ko taalibe ba noppi joxewaat ko addiya kon sëñ Fallu mooy murit waaye mooy murit pilis bu dee murit pilis nag mooy Baay Faal seen xollu moo ko am lépp jox ko sëñ Tuubaa desewul dara ndax ku joxe sa jëmm jox sa alal tabaxal sëñ Tuubaa juma ayal mbooloo Makka di jiite juma li sëñ bi gënoon a bëgg kon defal nga sëñ Tuubaa lépp ku defal sëñ Tuubaa lépp nag da ngay am lépp moo tax bisam bii mu am bis bu dul màggal Tuubaa moo la ëpp waaye nag na mu duggee sëñ Tuubaa moo ko may doon mbooloo mi nangul nañ ko ndax dafa nanguloon boroom jabooti taalib yépp waaye jabooti jullit yëpp loolu nag tey loolu liggéey bi nag sëñ la Lahad dafa mas dem benn am fay fan yu tëju soxna Asgar fekk ko ni ko sëñ bi neel mën na julli lu mat a julli sa baay julli na lu mat a bind sa baay bind na ko lu mat a yóbbu sa baay wér ndaw xam nga lu fi sax ah? jigéen taal bi duñu leen loolu nag ci la sëñ Fall nekkoon ci la man a yëpp kon yéen njabootu sëñ Fall bi ñu ngi sant bu baax bis bi moom bisu barkeel la ndax euh, sëñ Ousmane yaakaar naa Omar mi wajuram ak soxna Roqe sëñ Tuubaa sax tudd na leen ca xas gam doon def saadu làpp dum naa taqulu uxti jaa saw jaa Omar Omar rabiha ma la xabar kon ku sëñ bi tuddu say ñaari wajur kon borom kër kon bu ngeen defee lii nag te defal na ko noonu ñëpp ndax euh, sëñ Ousmane ko ne xam naa laa xam amoon ak sëñ Abdou Lahad ba mu am na yoo xam ni mënees na koo nett ndax sëñ Ousmane ku yeexoon am njaboot bu góor la ba taxoon sax mu ko yóbbu ko sëñ Fall mu boole yóbbu ca ñaan pant ak ko ñu wax Maguette Diouf yaakaar naa ñoom dañ ko xam ni ko nag soo amee jabar na ma ko tuddee bis ba bisu juddee bañ koy ba ko suñu Ousmane ba déclaré sëñ sëñ sëñ sëñ Fallou fekk sëñ Ablaat sëñ Fallou ni ko nag ma ko tuddee sëñ Ablaat ni nii ah, waaw fekk sëñ Fallou mooy sëñ Ablaat benn ni nga waxee léegi sëñ Ablaat euh, sëñ sëñ Fallou bu la fay lay sécuriser ni sëñ bi waxee ci Senghor rek Senghor ab yëfar la woon sëñ Fallou samp ko sëmp bu dëgër dëgër dëgër sëñ Blaat ko contrôle Senghor ba mu du coonoom xool bi sëñ am na bis boo xam ne bi sëñ Fallou yu woote fii ci jumaa ji ci ci ci Touba boobu sëñ Blaat bokki bargal dafa dajale waa kër gi neen sëñ Fallou day ngi woote pour suba waaye nag damaa yaakaar ne xanaa bàyyi leen Senghor la ñuy doyee boobu am na lu mu naroon folli ko la naroon waaye bi sëñ Fall bi mu ñëwee Balla Gaye mi bu ngeen laaj dala ko fa la ko fekk mu sëñ sëñ daal damaa ne sëñ Fall daal lan lañ doyee bàyyi leen seen bi sëñ Fall bi sëñ bi ñëwee nag ne leen ko jàkk bi ko piis dafa jóg nekk sëñ Fall kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon <laughs> seere woon na itam ni bi muy jàllee si te la mu yor bëriwul dafa jëkke Daaru Xudoos jaare sëñ Cheikh dem jaare sëñ Basiru mujjee sëñ Fallu ba mu ñëwee la jaayante ak moom sëñ Fallu ne ko li ñuy jë li ñuy wax ci bokk yaa jëkk a jaayante li ñuy wax ci bokk yi yow jëkk yaa ci jëkk a jaayante li ñuy tóyee taalibe sañ sëñ Mudu Maam moo ci topp moo ci jëkk a jaayante ba muy dem itam dañu sëñ lu moom mën naa ko mujj ndax sëñ Tuubaa rek la te sëñ Tuubaa nga fay fekk boobu seer rek doy na sëkk kon nag su ngeen defee lii def ngeen lu am solo def ngeen lu baax te ku ne war la leen cee roy wax ji du gudd alaaj bi sa waxoon nañu sant mbooloo mi neewoon na sax bedd ci ñu sonal ko soxna moom bi sa naruma ko woon nag waaye dinaa ko def soxna moom bi sëñ Bousso nee na mu ngi lay sant ah mbuso bi dama koon bàyyi ko mbuso bi rek mu sant la boppam ginnaaw man kon sëñ Ahmadou ñu ngi sant sëñ Abol Baraka ak sëñ Basiru ak sëñ sama xarit sant njaboot sëñ Fall gépp ak sant sëñ Fall yëpp ak taalibi sëñ Fall yëpp leen xam ne am nañu sas ndax sëñ Fall bu muy sa bëgg sëñ Tuubaa am nga sas wu rëy rëy waaye nag sas wu yomb bay la ndax sëñ Fall dafa yaatal dafa mat ba noppi matale li gën a jafe dafa mat ba noppi matale lim yoon ku ne gis nga ci sa bopp muy taalibi muy mu yeneen torox yi muy muy bokk yi dëkk bi ñuy wax Touba ku ne xam ne ni moo ko jëndoon waaye bi mu ko seetlee itam kenn moo ci gën a néew la ndax suñu blaati ko ci ëpp kër ñee ko ci ëpp kër te bu ko seen féete woo ko bàyyi leen ko fi waaye defu ko da leen bàyyi ak sëñ Touba waaye yéen itam sëñ Touba bàyyi leen te du leen bàyyi bi mukk ndax sëñ fa la toll noonu ci yàlla toll noonu ci sëñ Touba xanaa ngeen gën a góorgóorlu rek jàpp taalibe yërëm leen ormal leen te yéen a ngi ci sëñ Fall fii mu àgg dëgg la liggéey na waaye ñu fi bàyyi tam ay jàmbaar lañu jàmbaare googee nag yàlla na seen jiglaay yi ñëpp muy sët muy doom muy taalibe ñu ngi sant ku fi teew di gërëm ku fi teew di ñaanal ñi fi teew ñëpp saa borom dafa leen payu aju ñi fi teew ñëpp saa borom dafa leen gudd fan ñi fi teew ñëpp saa borom dafa leen wér ñi fi ñëpp saa dafa leen sax ci jub ñi fi teew ñëpp saa borom dafa leen saadu daal yi dafa leen ngërëmal sëñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi